bis buñ demee saam yallaayi rahmaani riimi yéen mbàkke mbàkke ak sangi mbàkke ak bokki mbàkke ak doomi bamba yéen mbàkke mbàkke ak sangi mbàkke ak bokki mbàkke ak doomi bamba nun dongo yaa ngi sun dongo yaa ngi sirab yaa ngi gisunu Bamba ñun dongo yaa ngi sun dongo yaa ngi sun ab yaa ngi gisunu Bamba roo yaa ngi nosu leen xol yaa ngi fob leen biir yaa ngi jël leen doomi Bamba roo yaa ngi nosu leen xol yaa ngi foog leen bi yaa ngi jël leen yéen doomi Bamba bu ngeen jógee xaw yoon wa mu daa xaw ba fekki Bamba bu ngeen di mbaa ngeen di weeroo mbaa ngeen tasaaroo ni noonu Bamba bu ngeen di réeroo ngeen di weeroo ngeen tasaaroo ne noonu Bamba nu sëfa yàlla tey topp yàlla te xam ne yàlla fi wuutu Bamba bu leen warante bu leen werante bu roy leen ci Bàmba bu leen bañante bu leen tëjante bu leen rawante lu dul ci Bàmba bu leen waxante bu leen defante bu leen jëwante seet leen ci Bàmba bu leen fa bam ba gaaya bam réer tàbbal ci seen biir ñuy dem ci Bamba lislaam du kéefar baatin du taayir alaaxiraay kër moo tax nu Bamba <clears throat> lislaam du kéefar baatin du taayir alaaxiraay kër moo tax Bamba sëriñ du am nguur bul bul dóor bul indi aw toor royal ma Bamba watul marike ay rangi rango bu yoonu sango seeta si ay yëngu-yëngu du tax ñu nango fexeelarango buur ya ca Bamba <clears throat> ay yëngu-yëngu du tax ñu nangu fexeelarango buur ya ca Bamba yëgal na mbooloo mi Bamba doyloo ñëpp a ngi dégloo koy doon Bamba bul def yaakaar yow la nu yaakaar bul def jublul ci Bamba bi woo kumaandang mu xëy ne janjang tey indi ci suusi Bamba tubaaba kay seef ak dëkk coo suuf daa tax sëriñ doona Bamba tarbiya dum daat xam nañu aw diig watul ma àndoon seetal ci du yoonu baaneex du yoonu kuy xeex bul tëdd bul féex royal ci du yoonu rango fetel di songo di dox di manko ni nooni bamba du yoonu tiitaar di soli géetar di lari ndeetaro kalaame bamba du yoonu koñse du yoonu tañse du yoonu forcé mel leen ni bàmba du yoonu parteer di jandi gerte di xotti sarta ci yoonu bàmba du yoonu doole du yoonu boole xalal de xoole joxeel ni bàmba murid kaleen def gaayam tasawu tey farlu ciy jëf te jeex ci Bamba di xal ngir yaa tey dabi góor yaa defal lekk buur yaa tey jëf ci Bamba desam mu góor ñaa sange jigéen ñaa de bendal gan ñaa da wax ci defar ayib yaa de fopp xol yaa de hubbi xel yaa ñuy naan ji bamba de faji tawat yaa de daggubul yaa de muñ naqar yaa nekkal fi bamba de fop dërëm yaa de sànni gor yaa te fopp biri yaa jébbal ko Bamba yërëm ndawam ñaa teral magam ñaa benax ñu bon ñaa bañ Bamba defab dërëm yaa dasanni gor yaa tey fopp biriw yaa ko Bamba yërëm ndawam ñaa teral magam ñaa naa danax nu bon ku bëgg a jiite di xëy di woote kenn bañ a wuute duniyaa a gaayu bon yaa duniyaa soofoon na fasiyal ma duniyaa ak gaa yu bon yaa loo ji ci duniyaa soofoon na Bàmba te ji ma yeesal diine te feesal dab yi fi xiinal ci ndoxi Bàmba fàttali nit ñee xettali nit ñee nettali nit ñee waxtaanu Bamba roy roy lu tab roy roy lu mun roy roy lu bër gaa daanoo de defi taalif tey xam ne tey jéem a rëy jëfoo ñu say ko Bamba defa di dajjaaj ji gaañoo ngir mooy Bàmba de digle aw hiw def tere aw hay sa bopp yi du way ñu de duggi doo déglu rambaaj doo jëwlu doo laaj kuy morlu tey laaj topp ci Bàmba te dem bi Tuuba wéetoon na booba xamoon na kooba tey xam na Bamba